daleen nag jàmm guerre ba tàmbali na ci diggante actrice bi di Clara ak jet setteuse bii di Awa Balde ah, waaw kurpañ yaa nga mel ni tuleeg male ci seen diggante de Awa nag jigéen bu féroce la boole ci sexe yi looloo waral ba xale yu góor yu bari di daw ci ginnaawam waaye nag góor ba ko nar trompe trompé nag na def ndànk ndax awakat du maye dara voilà les mecs à beau réfléchir là je me dis que c'est ku dof dof lu ba ñëw fii fekk ma sama rukk bi nga lokkati nga xëy di ma def ay fu dama lay wëri ji foo nekk ma ñëw loqati la fa yow it du la bàyyi prends tel tel tel qui tu veux je m'en fous moi mais man doo ma bàyyi parce que yow yaa ma convaincre ba ma jox la bii c'est tout je trouve pas solution moi tellement que on n'arrive pas à vous je sais pas Clara nag bu ñu fàttalikoo moom moo moom Raffinel Beauté di ab salon boo xamante ni pose ongle maquillage teg ay cheveux maanaam coiffure ci lay yëngu waaye tamit ñeneen ñi gën ko xam ci série bi di idole te cay jouer rôle xale bu jigéen bu santé bi te amoureuse lool kii di Cherif Mal moom Clara nag génnoon na bu yàggul dara di accuser kii di Awa Baldé ni dafa bëgg a nangu jëkkëram ji di wuyoo ci door Dora Gueye te Wally Seck doon ko way lu waral coow li nag kii di Awa Baldé message kii di jëkkëru Clara Diawara Doro Gueye ci ab heure bu guddi lool boobule message nag couple bi rafetlu ko woon benn yoon ginnaaw bi nag ñu daal di daje ci ab soirée Wally Seck ci di Clara daal di dem attaqué ji Awa Balde ci vidéo ba nag ñu daal ciy gis Clara mu daal di mer loolu waaye nag Awa Balde moom daf ko doon apaisé ci noonee nag Clara fexe na ba supprimer numéro jëkkëram ca téléphone bi Awa Balde ginnaaw coow loolee nag mel na ni tontu du forox ndax Awa Balde tontu na Clara moom nag ma ngi koy xamal ni amul kont bu mu kenn Doro Gueye di jëkkëru Clara mag longu la ko jàppe te nag seen diggante ñoom ñaar amut lenn ñàkki fayda lu ci masa am ginnaaw loole nag Awa Baldé mu ngi dankaafu Clara di ko xamal ni góor sax mënu ko door waxantuma laak moom Clara mu ndaw moom donc bu mu jéem lu mel noonu kenn woo di ma ne ay bàyyil mu sedd bu lu wax tatati tatata dafay yomb du ma nakk du ma nangu nekk miir bu gàttu kenn waaye bu ma ko nekkee boo ma tëbee di nga lafañ wala nga damm dama am ay nawle am ay am di jàmm je veux marcher la tête haute kon damay setal sama der lépp lay teg carte sur table fi mu commencé jusqu'à la fin ba début bi ba fin bi te dara te lépp preuve ndax tubaab preuve la xam te lépp lay génne donc arrêté seeni message ak appel yi may jot depuis démb fu nekk ku nekk di ma woo bi presse si bindee kenn woowu ma kon tey bu ma riposté ngeen may woo yaa feyoon journaliste yi pour ñu bind tey yaa leen di woo di leen saraxtu pour ñu bañ a dugal waaye léppay dugg léppay dugg du dangay dof dof dofoo teeral nga yow fi nga jaar ba duggu télé série télévision ña nga nekkaloon fa nga doon jege di duggu gaynde ni nga dugg def ëmb yi doom yi lëpp sa dossier complet laa yor danga xam kan moo nekk sama ginnaaw waaye ko am wéerukaay du neexa bu ma tu t'es vraiment frotté à la mauvaise personne je m'étais dit que t'étais une crève la daal une baltringue tu ne vaux la peine waaye dañoo toll ci stade boo xam ne nii zéro recul bàyyi journaliste yi ngay woo wala sa borom kër dina woo di paniquer ndax dara duma arrêté te na journaliste ya def ba dugal man la nga leen wax dinañ noonu ba dugal li ma wax na lépp leer te day leer lépp lii la xam-xam. tey nag mel na ni awa bàyyiwul benn yoon mu sedd ndax mu ngi xamle ni nag bu ko Clara bàyyiwul dina ko siiwal lim ko xamal lépp. je ne le serai jamais. teewaay merde. aduna day dox. demain je suis dit remarier à fonder une famille nga ne yow man ngay jéem a salir di mos une femme qui a des valeurs ne jamais. moroomu jigéenam je suis pas lâche moom ni nga mel ni nga jubee ni nga nananga ni nanana eh bu ma wax loo vu que tu te prends pour je sais pas principe barji je sais pas quoi j'en ai rien parce que je te connais pas je ma wala nga di ma waxal loo xam ne dara du ci dëgg te yow leer na la ne du dëgg mais la la ca neexoon rek mooy def bruit ma salir quoi tu na même pas honte une femme qui se respecte de jëkkëru jàmbur ku ma xam dëgg xam ne mais non am naa gëm naa sama bopp gëm bopp sama bopp boo xam ne ne non lijjantiw ma ndeyu pour finir ne me transforme pas en monstre je n'aime pas violer la vie privée des gens respecte-moi je me lève et bim tout me tombe la gueule jëkkëru jàmbur nangu jëkkëru jàmbur mais j'en ai rien à faire mais royalement nièce j'ai des neveux j'ai une famille j'ai des frères et sœurs et tout le monde a cru que je vais laisser tomber parce qu'à un moment donné j'ai fermé ma clapette pourquoi sosal di ma waxal loo xam ne dara du ci dëgg ma ne tekk nopp bu ma wax loo ton très cher mari tu une personne tu dois te plier à ce qu'il veut et que loolu rek laa def mais je savais que tôt ou tard ça allait me remonter sur la tête ndax bugguma ko may sosal pour des raisons pour cette personne aujourd'hui qui vient de me faire autant de mal et beaucoup de mal et qui s'est pas gêné lu waay am quoi ak lu mu moom elle s'est permis d'essayer de me salir mais moi je suis maman je suis tante j'ai des gars même il doit me respecter et il sait très bien de quoi je parle ka ma woo ne ko dafa ma bëgg a xam kooku woo ma ñu taaj ma mu may ne je t'aime bien ni sa meluka mais faut arrêter quand même celui qui m'a demandé de la fermer et je l'ai C'est parce que dans la vie, des fois, il faut faire des sacrifices. Grand de toi. Je ne te connais pas. Je cherche même pas à te connaître. Mais toi, par contre, tu as cherché à faire du buzz sur ma personne. En manquant de... Et arrête de... Pour rien du tout. Quand tu parles, il faut maîtriser. Tu maîtrises rien. nga tëb di dal di kii su ma la toppoon ma teg la gàcce. mais yow del bon man may xëy di baax. yow yaay amu jot. woo journaliste fay leen bind leen bi atta mais aw ma jot boobu man j'ai mieux à faire at coronavirus bi xamuñu fu ñu jëm je suis même à Paris là j'ai envie de rentrer chez moi bu ma dara di dal sax mu dal ma sama dëkk ndax dama gëm fi ma dëkk man ma di noppil bàyyi ko te non au nom de quoi on me salit moi comme ça gratuitement et je dois la fermer au nom de quoi respect en t'inventant toute une vie di duulu tontu du forox bu ma waxloo dama